jëf monsieur le président assemblée nationale maa ngi lay nuyu monsieur le premier ministre maa ngi lay nuyu du nuyu sama collègue député di nuyu ministre nga andal man Cheikh Abdou Bara Dolly nek député représentant du peuple bu Touba ma jël kaddu ci bis bi nga xamante amna muy bis bu am solo ñu war ko bayyi xel bokk ci membre coalition wàllu nek membre fondateur bokk ci comme li nga xam moy groupe parlementaire liberté et démocratie changement monsieur le premier ministre ginnaaw bi nga xamante nii jot nañu kayit wi nga xamante suñu collègue député yi yi bokk ci yeew yi yónnee nañ ko ñu ñu jot ko te joxuñu ko bu ñu ko liiree liñ si njëkk a te ñaaw la ko mooy manque concentration bi am suñu diggante yeew yi ak wàllu parce que jàpp naa ni déglu leen ma rek man li may wax soxlu ma ku ma tàcc mbir boo si bokkee dañ laa war a yëgal mbir boo si bokkee dañ laa war a xamal rawat na nga am expérience boo xamante nii kenn nattadu ko fii ñun boolewuñu si bokkuñ signature même non inscrits yi bokkuñu si yëguñu leen ko te jàpp naa ni ànd balaa neex naw la da si am bi ma ko gisee ma ñëw ba si ñoom ñii ma laaj leen ne lu ngeen bëgg a def ñu ne ma ah li ñu bëgg a def daal xamuñu ko man la ma war def def naa ko comme man na xawuma te bu ma xamul damay maandu man pariwuma pour wate ko damay maandu ci mbir mi ndax xaw ma lu ma doon monsieur le premier ministre jàpp naa ni am na lu bari bari yoo xam ne war koo laaj fii bi ñuy dem ñun nga xam ne dañuy wat li nga xamante ne mooy Touba di wax dañoo waxoon ni bu ñu jotee nguur gi muy am majorité lu waa nguur jigéen dañ ko indi assemblée indeegun ko modification code électoral dañ ko indi indeegun ko li nga xamante ne maanaam mooy euh, modification code électoral pour Khalifa Sall ak Karim Wade mën a bokk dañ ko indi indeegun ko li nga xam ne mooy dem révision code euh, code électoral code kii bi code euh, modification code pénal bi dañ koy def parce que suñu mbokk yi nekk si prison yi ñu man leen a dindi indeegun ko ak li nga xam moo jëm si enquête parlementaire yi loolu lépp defuñu si dara jàpp naa ne jamono yi ñu toll nii barki démb ñu wote si biir parce que man li tax mu wote bu doon benn dërëm moo jëm Touba dinaa ko wote ngir Touba ñoo ngi fi indi fi man Serigne Touba laa gëm ab taalibe laa ma keneen lépp loo xamante ni ñu ngi koy wat Sénégal bis Touba gis sama bopp du nga ko wate bu ñu doon xañ Sénégal gépp di jox Touba ma wate Touba man Touba ma gënal Sénégal moom ma gënal sama jëm loolu moo tax wat la may wat mënu ma wate nag ñu jox la délai boo xam ne pendant six mois ñoom li ñuy def bu fekkoon tàggu nañu fukki député ak juróom-ñaar mën nañu ko def te buñ ko xasee def ñu ko defaat mais ñun may nañ la del 6 mois bu fekkee leen bëgg ak li ñu waxoon defoo ko régler problème yi nga xamante mooy li am affaire corruption bi affaire yi nga xam moo jëm si mbarum mbënn mi yooyu defoo ko su boobaa ñun ñi nga xam ñoo bokk si coalition bii wàllu nekk liberté démocratie am nañ sañ-sañu dugal motion du censure pour war askan ñu leen lii lañ waxoon may nañ ko temps bi defu ko waxtaan si ñu sa war a waxal mais comme waxutoon ñun nag wax dëgg yàlla jox nañ leen cër ndax man mii di waxee bi ma jàppee kenn defuluma point de presse kenn seet siwu ma bin ma saagaa kenn attiwu ma fii lan ma saaga ñoom ñu ñëpp ñu bokk taxaw kon jàpp naa ne ñaari député wuru fi am man Cheikh Abdou Bara sëpp Sëñ Tuubaa nag buñ ma saagaa kenn waxul buñ ma jàppee kenn waxul buñ saagaa keneen keneen wax loolu yaakaar naa jaarul